Prodac bii kat bi mu ñëwee fii ñu natt ko aaneen ba fi mu ne jenn doomi aaneen dematul fenn ngir toog di ko nekk kon bëgg nañu mu dimbali ci financement bi ndax moom la ñu yaakaar liggéey la ñu xam tey moom la ñu xam ëllëg kii nga xam ne mooy monsieur le directeur di Goudiaby bi yal na ko yàlla fay ndax bañ ko indee fii ba ndëgë ni mu bàyyi soxlaam ñu jëlee ko France indi ko depuis booba ak léegi mu ngi def ay activités yoo xamante ni bii day jël alalam sax di ko financer ngir tant que bëgg Prodac bi continuer ñu liggéey am jàmm am bénéfice engrais bi nag mën naa la ni dëgg dëgg dëgg dëgg séntu nañ ci lu bari ndax engrais li sax mu baax mooy soo ko defee sa gàncax ren balaa gën a am rendement sax di déwén man am naa benn hectare ak genn wàll directeur seet si woon nañ ko daaw. ma def ca ñeenti saako engrais presque am naa ca deux tonnes cinq cent te benn hectare la ak tuuti ak am naa ca deux tonnes cinq kon engrais bi dafa am rendement ci ñun baax na lool fi mu ne boo naree bay fukki hectare te naroo ko engrais na nga béy ñaari hectare engrais ko moo gën sax nga bay fukki hectare engrais ko. tey ñu ngi ñëw fii ci euh, département bu Thiès euh, si commune bu Noto Diabas si village bu ñuy wax Haneen. pour jox baykat yi ay engrais yuñ ñu leen di jàppalewee ci contexte corona bi ak jafe-jafe yi ñu am ak pandémie bi donc dañ leen koy jox pour jàppale leen parce que OCP Africa mu ngi nekk tout le temps ci wetu euh, baykat yi pour jàppale leen parce que engrais mooy tax ñu am rendement yu baax ak revenu yu baax donc don bi OCP Africa mu ngi ko def Prodac jox ko CNCR jox ko ANRAC jox ko Prodam ak yeneen i coopérative kuréelu baykat yu nekk ci Sénégal. jotaay bi tey mooy euh, don bu waa product def waa product ak partenaire am qui s'appelle OCP pour producteurs yi bu Notto Diobass yi ñoo xam ne ñu ngi yëngatu si production gerte donc c'est 10 tonnes yoo xam ne la ñu joxe te bénéficiaires ñoo ko am ñoo sur 23 trois villages vraiment maa ngi remercier d'abord suma ministre bi ma remercier suma coordinateur national Papa Malick Ndour remercier surtout euh, OCP pour acte bi acte bo xamné bu symbolique acte bo xamné bu fort parce que population yi dañ soxla dañ soxla engrais bi euh, ren ji hivernage bi doxna hivernage bi doxna doxna bu baax a baax a baax a euh, dañoo béy béy jëm béy nañu mais seen problème yu bëri c'est souvent problème engrais du ñu am ja am engrais donc am xéwal bi maa ngi remercier au nom de producteur yu noo Tojo Baas yi ngi remercier ñëpp ñoo xam ne faciliter don boobu.